Thank you. moo la laaj ay lekk moo la laaj moo la laaj moom moo la laaj ñu lay boo bëri ñoo jox avance muy ruux ñu tax ñu expliqué dama ruux ay ruux li muy wax nii bokkul ak li muy def li muy wax li muy def bokkul dañoo ñu may ko mais su xaral gi nga xam ne lan la sa mooy doole du futeeku mais dama doole mën a futeeku ñu ngi koy dox si moom la des. si moom la yàqu te moom mooy ruux laa la wax. ci la dafa ruux. waaw dama xam ndox muy ruux. ci kose la wala ci dara. waaw monsieur Lalla ngeen koy laaj. instant bi pare nga. yàgg na. ah soxla ma si xaalis. laaj soxla sa lan la. Bourbe laa soxla Bourbe. Ah, lamb dama ko xoolal nga ci bokk. kon lamb dama si am wàll. dëgg la lamb. may jëngal doo door a soo soo sax. Ah, ah, di tàngal lamb ji dara xewul. kii dama koy kii dama koy jóg dama koy jóg dama koy wàcce dinaa fay nañ kase gala 15 millions fay ma aw ma mu kase kase ku wedd laayal la des moom xam naa ne làmb si moom la des. dëgg la ma la mooy tàppal bu mag bi buñ jaay moo xale yaay tàppal. di jël tuuma na yow. kaay kaay kaay kaay kaay Sandro kaay. ban làmb la ban làmb la sama moromu gaay ma amul état waxu état du sumeeku amul état du sumeeku damay liggéey ko daanee dama koy lekk. mais lan lay dal ci combat bi. dëggu ma loolu ma jaaxal ay lekk ci combat bi. laajte ko mu ne nga ñëw ma lekk ko ma wàccee ko. Ah. kii kii kii day day la laa mooy liggéey. mu ne la sos amul doole amul doole maa ko bu doole. damay lekk ko liggéey maa ngi maa ngi fépp li may jàng Moussa Ndoye xajul ci kaw. Moussa Ndoye moo may wër di ma tëgg. waaw loolu am may tëgg xool ko. mu ñëw tey nga yàq dama ñëw njaam rek mu ñëw tëgg. wala lii sooy day fay sooy noonu nooy neexoon moo tax ñuy féere di ñëw si man. mais loolu yoon dinaa leen woon ban may kan. liggéey la soo ko doon tuur. amul leneen soo ko doon tuur. damay tuur soo ko doon tuur. ma lay tuur